ami site internet Buzz Actu 221 dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar li ci gën a fës dañ koy door rek élection présidentielle bi ñu nam amal nag niki 2024 kii di Bamba daal dina ci yëkkati kàddu ci nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall ak Karim Wade nag am na leen loo xamante rek ñu ngi koy nëbb askan wi bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi nga xamante ne nag président Macky Sall daal dina koy wax ndax foofu ca assemblée nationale nag bi ñu saisiré li nga xamante ne nag moom mooy procès d'urgence ba dañoo daal di ci conseil kii di Karim

jamono ji dafa dafa waral fexe rek ñii di Karim Wade ak ki nga xamante ne nag moom mooy Khalifa Ababacar Sall ñu daal di paye li nga xamante ne nag moom lañ leen jotoon na alamaan ndax ñoom ñëpp nag amoon nañ xaalis ñii di trésor ci mbir moomu nag am rek faw nu saytuwaat et code électoral bu L32 bi ne bala ngaa nekk candidat il faut que nag nga daal di wàccoo ak yoon ba noppi nag bor boo amoon impôt rek da nga ko war a fay ak bépp boo xamante ne rek waroon nga koo amel ñi nga xamante ne ñoom ñooy trésor waaye nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu ki nga xamante nag moom mooy ah, Bamba Fall kii di Khalifa Sall nag ak Karim Wade nag ragg nañu seen der waaye ragg nañu seen der ci moomu leen mbir nag waaye terewul nag sénégalais yi fàttewuñ benn yoon ne ñu ngi leen yoreel nag li nga xamante ne nag moom mooy xaalis bu ñu fàttalikoo nag kii di Karim Wade rek moom dañ ko condamné mais woon ca atum 2015 lañ ko doon condamné nag juróom benni at yoo xamante ne rek da ko doon tëdd ak 138 milliards de francs CFA yoo xamante ne rek waroon na ko fay kii di Khalifa Sall moom tamit nag dañ ko daanoon ca atum 2018 ci penn juróomi at boo xamante ne nag moom la doon tëdd ak juróomi millions yoo xamante ne rek waroon na ko fay caisse d'avance ak de consignation ba waaye mbir moomu nag ba léegi rek gisuñu ci lenn ba tax nag Bamba Fall nag nee na daal am na luy ñuul ci soow mi ndax xamante nag moom mooy Macky Sall neem ragg na seen der rek seen der ba mu set wecc rek bu ñu fàtte na nag koppar yooyu nag ñu ngi ko yoroon ñi di Sénégalais yi bu leen fàttee abonné ba saale cloche de notification ngir amaat yeneen i info jërë ngeen jëf ci teewlu bi